asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan dal leen une fois de plus sur Mindiss TV tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy Diarekh plus précisément ci mairie bi ñëw à la rencontre du premier adjoint au maire monsieur nuyu nañu. waaw maa ngi leen di fay euh, di nuyu aussi képp koo xamante mi ngi béggee Mindiss TV def nuyu bi nag euh, di nuyu madame le maire d'abord ak équipe municipale bi nga xamante ne moom moo fi nekk fii ci Diarekh man maa ngi tudd Jean Marie Cheikh Ndiaye nekk waaw. Euh, monsieur Jean-Marie Cheikh Ndiaye en tant que premier adjoint au maire naka nga gisee changement bi nga xamante ni moom la monsieur le chef de l'État le président Macky Sall def ci gouvernement bi actuellement. waaw bon xam nga le chef de l'État nag moom prérogative la la mu xool équipe am bu fekkente mu ngi doxal poli lii di politique am vision bu mu am pour le pays bu dee ñu ngi koy doxal normal ah moom am na prérogative pour apprécier. Mm-hmm. bu ko defee nag moom xëy na bu laajee changement war mun a changer. mu laajee aussi mu maintenir équipe am rek mu maintenir que mais li am li ci am solo mooy ñëpp ñi nga xamante ne daal président am na si ñoom confiance ba dénk leen ay responsabilité nañ góorgóorlu te gën a jege askan gi loolu daal mooy li ci gën a am solo parce que moment bi xam nañ ne métti na avec euh, le contexte de la Covid 19 donc président soxla lu bëri surtout nag lu jëm ci euh, proximité bi gën a jegewantoo askan bi vraiment loolu daal moom mooy li nga xamante ne moo moo ci gën a am solo. waaw est-ce que am nga yaakaar que ni changement yi mu apporté dina résoudre euh, on peut dire problème yi nga xamante ne ni moom moo nekk ci pays bi les multiples questions yi nga moom la question euh, population bi di posé euh, yi nga xamante ne ñoom ñoom moom la am est-ce que yaakaar nga ni changement bi dina résoudre loolu yëpp. waaw bon mais tu sais que on peut pas tout résoudre sincèrement problème yu bëri nañ te mënuñu résoudre lépp mais li ci gën am solo daal nañu ñefe rek nañu ñefe am nañ ci ñoom yaakaar bu baax parce que aussi moom. moom mooy euh, le chef de l'État te xam na dëkk bi xam na le Sénégal parce que parcours na ko en profondeur xam na li fi problème te yaakaar naa aussi en fonction de ces problèmes là la defal le changement donc ñun moom amuñ benn am nañ yaakaar bu baax ni xëy na équipe bu mu tab tout récemment dina gën a investiru pour que vraiment li nga xamante ne mooy problème en tout cas bu ñu mën dun résoudre lépp tamit li ci gën am solo daal ñu résoudre muy les problème d' éducation les problèmes de santé les problèmes sociaux les problèmes d' infrastructure yooyu yëpp daal ñu gën cee taxaw gën cee farlu waaw surtout nag li nga xamante aussi moom la tuddee relance économique foofu tamit je pense que ne équipe bi nga xamante moom la ñu tabu tout récemment am na en tout cas comme du pain sur la planche ni koy waxee voilà donc war nañ góorgóorlu daal ba mën a doxal li nga xamante ne en tout cas moom mooy mébétam pour njëriñu askan bi ban impression nga am si nomination wu seen maire. waa mais nomination boobu li ñuy wax rek au n'est pas euphorique vraiment xam nañ ne dañ ciy sant yàlla bu baax a baax euh, sant aussi ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ñuy ñaanal mu ñu baax ñu fi ne euh, les parents les amis les proches parce que képp ko xam Thérèse fay Diouf xam digganteem ak Macky xam nga ne c'est un long compagnonnage comme tey lu luñ ko jox rek. lu mérité la sur le plan politique da ko mérité mais aussi sur le plan du travail parce que mairie bu muy diriger fii nii ñu taxaw xam nañ ne commune Diarekh diggante mille 2014 ak léegi li fi nekk ci ay changement kenn xamul nu mu changement yu secteur boobu mën a dem da nga ko fay gis muy l'eau muy lekkool muy la santé ak feneen ak feneen vraiment mu ngi ci def na ci liggéey bu am solo kon mérite euh, nomination boobu dañuy wax ne mérite la ah ñun tam ñu nangul ko suñ borom Euh, di ci sant aussi le président de la république parce que moom mënoon ko def te du ko def. Euh, am nga yaakaar que ne vous à la hauteur. non loolu du question <laughs> loolu mais pourquoi pas parce que sur le plan de bu dee njàng la Thérèse jàng na au cadre la te moom aussi yàgg na diriger ay ay ay structure agence de la euh, agence de la case des tout petits de la petite enfance du lu ndaw te diriger na ko pendant pendant plus de cinq ans te def na fa ay résultats boo xoolee actualité am na benn journal bu ci wax ne vraiment les partenaires les les les les agents ñëpp ñu fa ne d'une manière unanime dese nañ ko satisfaction donc loolu moo signifié ne lañ ko joxoon maîtriser na ko te def na ko te noonu lañ amee yaakaar ne aussi fa mu jëm dina fa def lu ëpp loolu parce que moom li ko ñor mooy askan bi li ko ñor mooy traduire en acte concret li nga xam ne mooy la vision du président de la république kon ñun amul benn xel ñaar ne leneen ak leneen ñun moom on est très optimiste te xam nañ ne aussi dina ko gérer avec hauteur am na hauteur am na compétence am te mën na ko kon dañ ciy sant yàlla bu baax di ko ñaanal rek li nga xamante ne moom mooy nouvelle mission boobu yàlla accompagne may ko doole may ko xel ba mu mën koo def ni mu ko war a defee ñu ciy sant bu baax.